إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله waaw maa ngi jaajëfal ñëpp di nuyu Serigne Mountakha Mbacké di ñaanal suñu borom yàggal ko te mu wér ba naa li mu am ci yoonu Cheikhul Khadim matale ko noonu lañu koy ñaanee këru tarixa diine yëpp di ñaan suñu borom yàggal leen te mu wér di baalu ñëpp ak te di leen baal ak lii moom wax dëgg yàlla démb bi moo ko mans Dakar laay ko waxee la envoyé affiche bi ma dem ba Kër Waali wan ko affiche mu rafetlu ko lool ma ne ko nag journaliste yi fi doon indi seen njaal keroog da ngaa yëkkati deux millions jox leen ko ñu ne nga ne leen léegi jël leen ko ngeen wàccal ma ci kaamil mhm. suba lañ koy amal ñoom fële ca Pikine wan ko affiche mu liir ko ne ma fan la ma ne ko waaw mu rafetlu ko lool ne ma nag ma fa teewal mhm. loolu tax sama teewaay bii tey ma bi ma ñëwee nag li ma ko yàlla day dal mhm. ndax dégg naa fi at mu benn dañ fi jàng euh, te ñi ko doon jàng ay muskaat ndax gis naa leen ay imam lañ di ay kilifa kon kaamil yooyu suñu borom mën na def ne rafet nañ ci jot bu baax de dina àgg ci borom kaamil yi hmm. képp kuy wooy dawlu rek yàlla la kaamil bi euh, euh, dal ci barke Serigne Sall ñu nu tamit xéewal yi nga xam ne joxe ngeen ko fi hmm. jox ko ay néew gi doole ndax sànq fee ma taxaw rek dégg naa benn soxna bu naan dëgg yàlla di ñiy nañ ndax xawma lu ma taal sama kër oh. te jox nañ ma ceeb loolu bi ma ko déggee fii benn soxna wax ko sama yaram dafa daw donc ngeen def geste bu rafet geste bu geste bu noble parce que bu leen neexoon rek ngeen yem ci benn kaamil wala ngeen yem ci kaamil am ndamu mbana laax loolu àggul sax cent mille hmm. ngeen def ko waaye da ngeen a def loo xam ne valeur deux millions sax est-ce bu baax a baax a baax di leen ne nag ay kor ngeen hmm. keroog ba ngeen ñëwee kër waale wax na leen ko nee na si sama waajur amoon bi muy dund sutura soosu fekk na ko ci biir bàmmeel fekk na hmm. ndax aéroport France ba aéroport Sénégal ba nit ñi ñëwee ci armée yi kenn gisul corbillard Mama Diaga kenn gisul néew euh, kiiw Mama Diaga ba ni ñu koy dugalee ci biir bàmmeelam amul ku la mën a wax ba ci man mi sax gisuma nan lañ ko dugalee ci biir bàmmeelam du ak njabootam kon sutura soosu am na te it sutura soosu yéen journaliste yi da ngeen ci jouer am solo ndax gisuñu benn yoon benn journaliste wala benn presse dugal benn corbillard Mama Diaga bu leen neexoon tey ji ngeen dem ci buntu armée la kilifa bu génn ngeen jox ko micro mu wax hmm. loolu kenn sañu ko bañ hmm. ndax seen liggéey la gisuñ tamit ngeen def ko fële tamit di kër Papa Thion gisuma fa benn média bu fa taxaw di jël kii hmm. ñoo ngi rafetlu liggéey boobu ngeen xam ne amal ngeen ko moom ci boppam tamit gis na ko ba rafetlu ko keroog ba ngeen fa ñoo ngi ñun daal am nañ mbégte wax dëgg yàlla lii nag moom wane na ne àdduna daanaka wane ngeen seen diggante seen coloré seen waale su showbiz bi jeexee wane ngeen ne Wally seen nit la te it da ngeen koo yàlla rek tax donc lii daal ah, feex daang la dong laa ci gis tawfeex dong laa ci gis di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne nag nii ma ko gisee nii sànq jëwriñ ñoo ne jox ma suuf bi nga xam ne ci lañ wàcce kaa bi ñaanti pour may jël ko jo jébbal ko ki nga xam ne moo di waale incha allah tey bu may dem dinaa ko yóbbu jébbal ko ni ngeen ma ko joxee mu xam ne gars yi matal nañ ñëpp bu ñàkk nag moom li ngeen def di liggéey bu rëy bi di ma ko gis ci internet bi incha allah jërëjëf jërëjëf kontaan nañu yéen ci do am na la ci dool mooy waaw ku ne xam ne soxna si dafa fonkoon hôpital mm-hmm. daana jël si aw ñaqam ñu dem ci hôpital bi di jàppale ñi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw ginnaaw kaamil ak xéewee ji ak ceeb yi ñu joxe ko xaalis bi mhm. ren dem ci hôpital yi ne ci gox bi ña fa nekk seen loxo jot seen ginnaaw dimbalee leen ci xéewal bi fi des mhm. wàllu ordonnance pour fa fekk nga am ordonnance bi la ko def ko ngir jëmmi yàlla seen pour seen tubaab ak mama jaare bi nga xam ne moom moo dem ndax ku ko fay borom ñu dem mhm. ci hôpital bi bara lu mu daa dem ci hôpital bi dimbali loolu luñ boo xam ne tam ñu ngi def ci ndam fekk ko fa mu tëdd ci baat seen tubaab ayca euh, ko defee yow am na loo ci war a leeral ndax euh, xëy na li ñuy wax rek lii ñu xam na ñun ñoo ñu ngi koy def di ko wax moom moo yor wàll woowu ndax kenn ku nekk xam na ne moom moo yor wàllu communication du reporter dafa fekk na nag mu nekk nit ku yaru nekk suñu rak ba fu ñu tase ñu jiital ñu nenu sama kàddu jox naa leen ko bu ngeen waxee waxaa leen leen waaye lii ñuy def moom moo war a taxaw def ko ndax moom moo yor wàllu communication bu ko defee ñu bàyyi la rek nga jot am bilan boo def leeral ko ñi nga xam ne ñoom lañu ko seqal ndax groupe lañu waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu euh, bépp naataango suñu naataango presse bi nga xam ne ñu bu taxaw di jiital nuyoo bi kii di président Malick Touré mm. ak euh, suñu adjoint bi nga xam ne muy Beydi Beydi Ndaw ñoom ñu def liggéey bu mucc ayib buñ demee ba liggéey bi toll fii yaakaar naa ne ci seen loxo la ak suñu secrétaire bi nga xam ne muy Siraja euh, di rafet rafetlu initiative bi parce que mënoon nañ ko defee neneen parce que bañ demee di jaale waale loolu taxu woon ñu bañ demee ci woyof teefam mu am benn ndigal boo xam ne wadd na ci moom mu sant ñu ñu wàcceel ko kaamil suñu yaay ju tedd boobu muy Mama Diaga ñu defee ko comme ni mu niñ ko war a defee nag euh, wàcceel ko kaamil ci limu fukk ak benn wàcceel ko euh, kaamil euh, jagleel ko moom mii di Mama jaga muy yaayam mm. euh, jaglel ko aussi tamit way dawlu yi nga xam ne wàññeeku nañu mm. muy euh, Papa Thione muy aussi tamit euh, Momi Seck ak kii nga xam ne mooy suñu naataango muy waajuram bu góor wàññeeku muy Bamba Baro euh, ñu wàcce waale ko kaamil ak jagleel ko ñëpp ñi nga xam ne wàññeeku nañ fi ci diir bu toll noonu li gën a mun a am solo lu ñu war a mun a lim mooy def nañu ñett mbana laax boo xam ne jagleel nañ ko ñii nga xam ne soxla nañ ko yelloo nañ ko mm-hmm. muy ndimbal bi nga xam ne Waly sekk yëkkati na som bu takku teg ko suñu loxo mm-hmm. waaye dañ ne som boobu buñ buñ ci buñ ci buñ ci dolliwul duñ ci jël mm-hmm. moo waral ñu jël euh, initiative boobu ñu jël def ci suñu doole def ci suñu pas-pas ba sax loolu noon ñu jox sax dugal nañ ci lu ko raw euh, jël nañu euh, jël nañu aussi tamit pack d'eau yi nga xam ne muy ay ndox yoo xam ne bouteille d'eau la ñu jënd ci ci limu deux cent deux cent pack deux cent multiplié par pack d'eau yi mu ngi def diis yaakaar naa ne deux mille pack d'eau la ñu jëlaat euh, leneen li nga xam ne du gën a am solo la muy laax def nañ ñetti mën a laax yi ma la wax ñël nañ tamit euh, niñ ko mun a waxatee euh, li tol ni ceeb ceeb bi jënd nañu deux cent sacs yi nga xam ne sac bu nekk mu ngi def cinq kilos yoo xam ne jagleel nañ ko ñi nga xam ne yelloo nañ ko ak mille cinq cent barket yi nga xam ne ci laax bi lañ koy soox lañ lañ ciy sotti ak soow distribuer ko ñi nga xam ne yelloo nañ ko loolu noonu yëpp daal boo xoolee Euh, pas-pas ak bopp bu nekk aussi tamit jar na préciser yëkkati nañ ku nekk jox la deux mille francs ngir ngir baaxee la ko yow tamit nga mun a xam lenn li ci mën a jumtukaay bi ngay mun a def mm. pour mun a dolli sa dépense mm. loolu yëpp daal buñ koy xool buñ koy def dañ koy def ànd ceeg yéene mm. ànd ceeg pas-pas ànd ceeg yite bi nga xam ne ñun ñi waa groupement des reporters et techniciens du Sénégal ci njiit bi di Mali Mame Malick Touré jël na ko def ko jagleel ko ñi nga xam ne yelloon nañ ko loolu laal la ñu mën a lancer comme message di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupement des reporters et techniciens di Sénégal ci acte bu rafet bu ñu def di nuyu kii nga xam ne tamit muy délégué nga xam ne bàyyi na itam ci ndigalu euh, waali mu yebal ko fii nii mu ñëw teewee jotaay bi teewee teewee wàcce kaamil bi nga xam ne suñu imam yi def nañ ko gis nañu def nañu ci limu euh, fukk ak benn kaa ci ay kaamil wàcce ko jagleel ko kii nga xam ne mooy suñu mama jaaga di ko ñaanal yàlla na suuf oyof si kawam yàlla na saraxam yàgg euh, suñu kaw seen loxo yàlla na ko yàlla xare àjjana yu gën a kawe loolu daal lañu am comme message yu ñuy lancé sénégalais yi di wax ne tamit ñun groupement des jeune reporters et techniciens du Sénégal fu ñu yem loo ñu yem fa dañoo ñëw pour wane suñu bopp ci liggéeyu réew ci liggéeyu réew mi ñu dellu ginnaaw ci suñu conviction ñu gëm yaakaar naa ne saa su ne dañ koy wane ak suñu pas-pas ak suñu yite di doxal comme nit ñi nuñ ko bëggee askan wi nuñ ko bëggee ñu koy doxalee noonu amuñu dellu ginnaaw amuñu benn tànk dellu ginnaaw tànk kanam lañ am te xam naa ne incha allahu rabin ci yeneen jéego ak yeneen initiative dinañ gis suñu doxalin ak suñu taxawaay di leen jaajëfal mbokk takaan naataangoo yi nga xam ne maa ngi sekkoog ñoom kàddu gi di leen remercier bu baax a baax ci ordonnance bi facture ordonnance bi somme bi nga xam ne nañ ko ak médicament yi nga xam ne war nañ ko jënd dinañ dem laaj leen jege docteurs yi xool ñoom ñi nga xam ne yelloon nañu ndimbal ñu ñëw assister leen taxawu leen parce que tamit xaalis yi comme ni ma la ko waxee bu buñ ci dolliwul duñ ci waañ loolu lu am solo la loo xam ne la jubluwuñ ci dara lu dul wane suñu pas-pas ak suñu yéene ci mbépp doomu aadama bi nga xam ne am na yéene ci ñun bëgg ñu defal ko comme ni mu bëgg. jërëjëf yaakaar naa leer ku am pas-pas ci digganteem ak doomu adama yi ku am pas-pas ci digganteem ak yenent bi loolu moo feeñ ci bisam bi ndax kenn ku ne xam na ni ku ne jóge na fi waaye façon bii mu fi jógee ak yéene bi ngeen ci def ak moom mi ni ko àdduna sépp taxawoo mooy waral ni def lu baax rek moo am solo moom nag li ma mën a seere ci moom euh, lenn la ndax jëflante na ko ak man ndax waaye yi nga xam ne moom laa way yonent bi moom moo ko njëkk a dégg Papa moom jaaga oustaz Mouhamed mbay moo ko yónnee ba ko yónnee mu woo ma yónnee ma ak ju bari daal di ne ma yónnee ma la ko ngir li nga way way yónnee ma la ko ngir Papa Thione dama la ko yónnee ngir li nga li nga ko way Seydouna Mouhamed moo tax ma yónnee la keroog may sargal Papa Thione fii ci stade bi noonu la def keroog ba moom mi wàccee ma dem di ko jaale ji li ma wax mooy yow de dan la ko war a jaale ndax moom mi sa doomi nijaay la kon nag lii ngeen def ñun ñëpp ko rafetlu kon boole ko defee sama koñ jaadu na lu ma jàppoon ma bàyyi ko ñëw ànd ko ak yéen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mi tax ngeen def ko ak façon bi ngeen ko defee man man moom mosumaa gis façon bi yal na leen yàlla taxaw te yàlla jàppale leen ci barke yonent bi jërë ngeen def non abaare moom si man la nekkoon abaare bi yow waroo waroo abaare bi si yow la nekkoon ñaan gi nangu abaare bi si man